tey laa fase dunia Papichou yow jàppoo ne niveau bi mu ngi wàcc jàppoo ne yaa ngi wàccee niveau bi ba zéro est-ce que li ngay def góor war na koo def ah ok ku ñuy jiiñ dëmm ngay soccoo yeelu liir yéen yéen a ngi confirmé li Nabou di wax te leen ko man li moo tax aw ma xarit aw ma àndandoor sama yoon nekku ci nag mais ci pénc mi ngeen ko waxee ci pénc mi lañ koy jàngatee ak yéen tey daal na fi ngeen jël lépp lu mu am tuddee na ko ndeyam nit ku baax la bi mu toogee ci sëyam ba léegi jógul du xas ay nitu démbam du laay fal ndayam Tické Laobé tukkiwul amul ñaari nationalité ci dëkk bi la juddoo fi la yaroo xewal nañ ko xew lu rëy ok ok mais li ma ci jàngat mooy yéen dafa mel ni nabu gën na leen demi naa xam ngeen lu tax nabu nee na yéen ñii di wax ñëpp xamul ci kër kenn kon yéen a demoon yéen a ñëwaat yéen a yóbbu woon yéen indi defaraat leen seen toogaay réew mi xat na xat goo xam ne